mbokk yi ñuy suivre ci Leewtoo TV fu ngeen mën a ne si àddina bi ñu ngi leen di leen ziar comme ni ngeen ko xamee rek Leewtoo 100 pour cent làmb la Talla Ndiaye la tey si caméra bi si kaddu gi Babacar la waaye si montage bi Ousmane lay doon ak yàgg moo tax nag tey ñoom fu ñu dugg am ku ñu leen bëgg wan ngeen gis ko parce que tam c'est très normal mais di nuyu ñu ñu suivre ñëpp taal nag du mën a ñàkk mën parce que gis nga tey fi ma génn ci West Ham United moo ma ko solal jib seen borom Petersen mais nañ dem ma wër ndax dinaa gis ki ñuy xool ba xam kala parce que nag du mën a ñàkk ñu indil gars ay mbër man nag ci ay xeer laa ne nii di dox ay xeer Talla Ndiaye nag xam nga lii Talla man na est-ce que xam naa man bool bool laa Talla xaw ma ndox de waaye tey dugal nga ma ci géej gi Talla mu ngi nii de yaa ngi koy gi champion kon de kii laa doon seet maa ngi lay bëggee mbaa yaa ngi am jàmm naka yëngu yi ah yaa ngi ñëw ràcc toog ci diggu géej gi nii de heure bi moom bu ñu jegee entraînement ñëw toog tuuti kër bu ñu sangoo dañuy ñëw doxantu géej. kon de taal daa mel ni kii laa doon seet mu ngi nii gis naa ko kon mbokki Leewtoo kii la woon xëy na ñu toog nag seq moom waxtaan parce que nag am na ci lu mu jóge am na ci fu mu bëgg a jëm ñu fas yéene nag seq ak moom ay wax pour xam ci dara. waa kon gars yi noonu lay demee nag gis nga fi ñu toog nii ràcc ci xeeri géej gi fii defe naa fi fi fi fenn la Forza. Euh, fi mooy cassation. waaw Mazigalante moo nekk nii à côté. terre bi moo nekk nii ak côté fii mooy nag dëkk maam lëg daawur waaw. moom ngeen koy bàkk yéen lébu yi sax lëg daawur boobu. maam lëg daawur mbay si baam baam mbay mbay waaw waaw. mais nuyu nañ la. ñu ngi lay fay bu baax. waaw yaa ngi am jàmm. waaw ñu ngi sant macha allah. naka yëngu yi naka réew mi. ah réew mi ngi rek alhamdulilah rabbi amin ñu ngi sant yàlla bu baax waaw daal macha allah parce que daal ñu ngi ñaan daal réew mi mu gën waaw mu gën a dox rek waaw macha allah. Mhm. Forza ak làmb forsa si làmb euh, mën nga ñu tënkal Forza duggam ci làmb ci lu gàtt lu ko ci dugal ak kañ ci dugg. waaw làmb ma ci duggee léegi mu ngi yàgg parce que ma ci duggee léegi ay at yu bari la ndax bi ma ñëwee avant may ñëw dakaar rek yàgg naa ci mbabat te ma ñëwee Dakar ak léegi 2003 ak léegi yàgg na kon yàgg naa ci làmb. làmb bi nga ciy dugg da nga amoon ku la inspiré idole bu tax nga dugg ci wala ko doon roy ba dugg ci làmb. loolu mënta ñàkk nit nit da ngay gis nit muy def dara mu neex la nga koy def ba mu dugg ci yow mais man làmb don la ci man rek làmb def naa dama gisoon sama gars yi ñoom Karim jaay ak ñooñu ak ñoom ñoom Modou Dione ak ñoom Pa ab Ablaye Diop bu yeen ñoom yaaku ñu koy foowe ñoom aussi ñoom Pape Diop tout le temps ñu koy fowee may nekk ak ñoom man ma daan ko fooy mais man basket bi moo gënoon nekk sama suma affaire hmm. mais aussi làmb dafa doon doon ci man rek man bëri dama am man door ci dugg waaw. nga idole comme tey bu ñu mel ni ñoom Tyson Yékini ay Moustapha Guèye ay Baboye est-ce que nga ci ñooñu idole. man benn man am na kenn koo xam ne moom yëfam dafa ma mës a neex def ma nekk xale moom laa njëkk xam ci mbër muy Moustapha Guèye parce que sama maam moo taxoon ma xam ko parce que man sama xaritu maam laa woon maam Abdoulaye Ndione moom Moustapha Guèye la ma a bëgg ci xolam. waaw te man maag moom ñu daan nekk ma jege woon ko lool man moo taxoon ma xam dafa Gueye parce que boo waxee mu ne të xale bi dafa jàmbaar moom daka daan daka daan kañ rek quoi. Euh, sa sa say victoire mën nga cee ñëwaat. mën naa ci ñëwaat mais man mën naa cee bañ a sori waaw amoo à peu ay dix onze victoire onze onze combats laa am. am deux def deux am li ay doon ay victoire waaw. waaw. léegi ñu gis nga nekk mbër mu mel ni sa carrière dafa xaw a yéex ci ni ko ñu bari di jàngate lan moo waral loolu carrière bi nga xam ne parce que ñu bari dañu doon xalaat ne Forza heure war waroon na fekk mu dépasé fii mais ba tey mu mel ne affaire bi day dox doxin bu nga xam ne daal mën nañ ne lentement lay dox quoi doxul doxul bu gaaw doxul dox bu gaaw. waaw mën nañoo ne doxu karkatar lay dox <laughs> waaw parce que tey gi bu fekkee fi ma toll nii ci làmb ba léegi maa ngi foofu dox bi yéex na trop mais tamit da nga koy nangu parce que ñaar da koy première bi bi ci ëpp solo mooy ndogalan ci biir ndax yàlla moo dogaloon ma am blessure bu def trois ans ñetti at du ñu bari génn sama ginnaaw boobu maa ngi tëdd di seerante la ñu bari ay booy yu bari feeñ nañ sa feeñ nañu bi ñuy feeñ fekk maa ngi tëdd beneen bi nit ki loo bëgg a bëgg a bëri mënoo wañaat mbëri na leen kaayoon ñu bëri mbëri nag bu fekkee bëgguñu bëri ak man kuñ ci wax mu wut lay aussi damay andil retardement rek ndax benn at bu nekk nga benn combat yoo xam ne da koy wër ba sonn doo ko bëri dem a ba sës doo ko kon loolu day metti tuuti quoi. kon daal su ma la déggee ñàkk la buñ buñ la ñàkk nangoo jël moo tax affaire yi xaw a yéex daal. bokk na ci trop da ngay xool sama combat bi ñu koy dox ak léegi bu fekkoon bu fekkoon gars yi jëloon nañu heure bi bëri nañ benn combat. mais boobu ba léegi ñuy ñuy delloo rek ñuy rëtt di daw di génne ba nii nii nii loolu moo tax du yomb quoi. Hmm. daaw bëre nga ak Abdou juuf nga daan ko est que ba nga bëree ba daan Abdou Diouf ba tey ba promoteur ñëw la démarché sa combat ak diw wala nangam. sama nañu sama combat parce que sama combat ak ak kii nu mu sax mbër boobu rakku sos bi. Garga Mbossé dox nañ sama combat moom wax nañ ma ci ba ma dem ba amoon ci yaakaar sax. na dina taxaw ma jékki-jékki dégg na jël na Moussa Ndoye sama combat ak Malick Niang am na promoteur bu ko doon wax mu demoon ba sori mais moom dafa jékki-jékki daw génn mënuma ci dara. ragal la wala lu xew wala dañ laa est-ce que dépassé wuñ la tamit wala. dépassé ñoom ñëpp koo ci gis mu gën mu gën ma palmarès. déet wax ma Moussa Ndoye Malick Niang ak Garga Mbossé Garga dafa dem jëli Moussa Ndoye mais ñoom ñaar koo si gis mu gën ma si palmarès. kon loo jàpp ne moo tax ñu bàyyi la. su ma leen bañul ñoom mënuñu maa bañ. kon lu tax ñu bàyyi la fi. waaw ah. yow fekkee da nga gis gaynde taxaw fële yow nangu woo faa jaar li tax mu jaar fa yow yaa ko a li tax doo fa jaar yow yaa a wax. kon da jàpp sa bopp gaynde ñoom nga jàppaleen leen. non du question jàpp sama bopp gaynde jàpp leen ay muus wala kaña te loolu de dama la jël exemple na la yow bu gaynde nekkoon fële yow nga teggi li tax nga teggi yow rek yaa ko mën a expliquer waaw ah. mais gaynde gi day jàpp ne moom yoonam moo neexul jaar rek parce que gaynde moom boog laa romb waaw loolu mën naa nekk. dañoo ragal gaynde gi. waaw gaynde xam nga gaynde moom neexul ñeme la plupart. yow Malick Niang war na laa ragal si làmb. jaaxal na ma de boo ma ko laaj dama naan déedéet mais bu ma xoolee doxali na mën naa amaana sama xel si biir mën naa nangu loolu. da laa ragal. waaw déggoo ma ne boo ma ko laaj dama naan déedéet parce que gisuma ragal ci moom mais su ma xoolee sama xel bu baax ak li may dégg muy wax. sama xel danaan danaan kii xam naa fit bee ñemewul. Malick Niang ci li may dégg ci ndax man jël naa ko interview moom xam naa ne combat bu métti yomb bëgg ko ci carrière am. combat xeex la bëgg. moom combat la bëgg mooy bu métti. waaw non adversaire xëy na nag foo am loo bëgg dañ lay fay lu ko jar. damay laaj Sénégal kenn daaxu man dama dem ba dama si dékku dama si dama dem ba dafa booy samay nopp sa combat boo mën a am budul combat yow ak diw yéen ñaar yéen ñaar yéen ñaar boobu mooy combat bi ma ne yen leen bëgg xare badar bi moo leen si neex wala lan ñun dañ gis ne ñaari jàmbaar lañu kon loolu moom loolu mooy gisee boppam. loolu mhm. tey mu ngi fi actuellement amul combat Malick Niang. ñaa man maa ngi ne amu combat. kon looy wax seen diggante ak promoteur yi leen di dégg. promoteur bu ko soxla man pare naa waaw man maa ngi nii je suis prêt avant saison bi ñu tëj bay war na tooy. biñ ko démarché dañ la proposé fayoon nañ la kase wala ba nga du. xaw ma ndax fayoon nañ ma këcam de parce que man affaire u xaalis yooyu li ma koy lijjanti bëriwul. proposé nañ ma ko man nangu naa man pare naa ci loolu bu yàgg. Garga est-ce que gisul lu gën a doon ba tax mu jëli Moussa Ndoye bàyyi la. non a doon xam yoon dañuy wut ay yoon te du yoon ah Moussa ah, du yoon léegi su ma ñëwee bu dul ñooñu Garga am na combat Malick ñaamagul kan ak kanaat mu nekk sa xel. mais Yékini Senior Forza combat bu gën a neexoo da nga gis. ah kooku baat diisul ci yow Yékini Senior. yow dañ ko xool xool yëkkati si yoon demande mbaa disul si yow sëñ Babacar. loo gis ci moom ba ba yaakaar ne combat la seen diggante. xool rek gis gis ko moom narul bëri ren te combat sama combat ak moom def naa ay at a ngi bëgg ala yëkkati junior ala nees Forza la ñu bañ gis wala xam nga loolu mosoo ko gis. lu tax ñu lay bañ a gis. loolu ma jaaxal sama combat du caaxaan si ñoom de. dañ laa ragal wala qu'est-ce qu'il y a. dañ maa ragal xam nga ragal dafa baat moom dafa xaw a diis. Ah, da nga ne dañ lay bañ a gis. waa bañ a gis. waaw mais ragal dafa xaw a dis quoi mais xam naa tamit seen fiti ñemewu maanaam ñi muwuñu ci làmb daal déedéet est ne sa Yékini Junior yow di nga leen xool jàpp ne ñi ay ragal lañu sa waaye nag xanaa ne koo gis am na ko koo gis rek koo gis rek am na koo xam ne da koy bàyyi xel wala xamoo loolu ah, nit àdduna koo gis rek am na ko mu bàyyi xel de ah te ñoom da jàpp ne dañ lay bàyyi xel bu baax non jaaxal nañ ma de man de bu doon ñoom jël jël ma jël ma ñu jël ma xaw ma. maanaam kenn pour xool ba xam parce que man kuñ mosaa wax ne moom lañ fi bàyyi maa ko jël. ah, ah waaw ban combat nga fa dégg ñu ne diw mi moo ko fi bàyyi te bëri diw mi dañ ko fi bàyyi te bëriwul ak forsa kenn rek laa bëgg a xam amul benn mbër ñoom ñi loon wax naan dañ leen fi bàyyi gars yi leen daw maa leen laaj dañ ñëw bëreeg man ah. Yékini Junior moom dama si ñëw parce que dama koy gis muy ànd ak Papa Sow ak yu mel ni gi noonu ak ñoom Modou Lo euh, est-ce que bëreek moom wóor na. lu moo ci wóor na ci parce que nag dañuy liggéey dañuy entraîné surtout Yékini Junior day day liggéey de. Yékini Junior bi nga xamee ba léegi liggéey nga ko mos a xamee mosul ñëw ci làmb andi andi andi mosul ñëw ci làmb mu andi loo xam ne dag naan non kii tey forme bi nangam ak nangam moom buy daanu sax day andi forme bu extraordinaire ah. moom ci loolu la nga xamee man moom xam naa ne dama koy estimer ci loolu suul ñëw stade andiwul forme waaw moom moom saa bu ñëwee day andi forme da nga xam ne kii dafa liggéey da nga xam loolu baax. nees moom la taxoo ko jóg dala dépassé moom waxi Gris Bordeaux lay wax ne. moom nees dafa xamoon nees dafa am lu mu dese dama xaar na bopp ba nekkul ci moom. ndax nga wax loolu. parce que xamul dama koy dimbali. Ah, da nga koo raw wala da nga koo ëpp kase ba di ko dimbali. yow dama koy dimbali rek. koy dimbalee nees. nees bu bëree cachet yu mag loolu loolu sens sens moom rek mu bëree ko mu bëree ko lu jiitu mais nees ay champion la fi daan ay xale yu ndaw ay daan na fi ay mbëra ay champion ay Ama Balde ay ay ay xam Balde bokk. Sow dugg na seegri daan dafa Papa Sow. waaw ak kan. ñaar ñaar ñaar mais si li nga dafa am ñu tax ma bëgg ko jël waaw Elton moom waaw moo tax mu baax waaw mu baax nag. Mhm. maanaam dugg mi mu dugg séeréer daam Papa Sow xanaa daf la naqari yow. non pas naqari xam nga mais aussi du ma naqari parce que sport la sport moom que le mooy gañ man sax mu doon bëreeg moom kii yàlla dogal ni mooy daan mooy daan sama yéene laay am ak sama bëgg-bëgg ñëw wane sama bopp après li yàlla lay doon. Mhm. Gora Sock tamit naa mu lay laaj moom nee na nga ko kooku moom ragal yow. moom de moom dafa juum rek. Ah, nee na ko nga koo ragal de. xam nga àdduna ragal ak loo xam ne lu amul njëriñ man samay wax si moom sax samay bu may wax si moom sax du ma amul njëriñ. mais lu tax osé woo nangu jël avance Gora Sock yow tamit ni ngay laaj. Gora Sock yow Gora defu fi salaamaaleykum maaleykum salaam. Gora Sock daan fi Cobra Gora gëj naa daanu di forsa. bon Gora Gora di mbuqat bu bon gën a man ay. daan daaw bàyyi ma njoon fële ca ndar. fu ma gis di ñëw di dee ma baab naan day nuyoo di sëgg ak lii nii Gora Sock dama la dem toogee moom. est-ce que dalay lay nax pour nga jël avance bi. non ba nax moom dafa may nax moom mooy ngaaka moom mooy su demoon ba làmb rek wartuñu boole moom bu ah, gaa yi waxee benn kenn du waxaat ñaar. Hmm. mais fi mu ne da nga ne làmb boolewu leen wala. làmb boolewu ñu amul ko amul benn njëriñ su ma ko doon jël tey tamit nit ñi gis-gis bi si nit ñi teel a am sax moo baaxul. barki Alaaji maa su ma ko jëloon tey ma duma ko daan ka mais du ma ko jël boo ko daanoon tey dañ naan nañ ko. barki àllaa ji maanaam boo ko daan tey dañ naan xamoon nañ ko da nga koo ëpp doole da ko koo dàq bëri da nga koo lu xew la ma xam ne maa ko dàq bëri maa ko dàq li li làmb soxla lépp maa ko ëppal moom góor a du ñeexu ñebe daa mel ni de góor di mboxat góor bul ci moom ma koy may promo sax waaye sëñ Babacar waaw ah, non taxul may jóg léegi damay tëj foofu taal Ndiaye ñu dugg ci loo xam ne ni sa écrit face écrit bi dañoo seetlu ne doxatul wala ñu bari loolu la ñuy wax da ngeen a entraîné tul wala da ngeen a déggooti seen biir wala lu xew biir écurie Fass. non loolu. Papa tamit ñu ngi dégg digganteem ak Siteu. waaw waaw loolu combat bu important la combat bu neex la te war naa mën a am sax saison bii nii waaw bu neex la te aussi euh, Siteu ak Papa bu ñu bëri woon tey jii combat boobu combat mun ngaa dàq saison bi waaw. bu neex lool. ana Lac Rose. mu ngi fi. ci lu mu ne. mu ngi sant yàlla bu baax mu ngi si affaire bi. yaa ngi koy gis. waa semaine bi passé rek ñoo nekkoon. mu ngi entraîné wala ci lu mu waaw mu ngi mu ngi liggéey mu ngi liggéey. Mhm. ana yeneen xale yi ñoom Gris 2 affaire yooyu. ñoom Gris 2 waaw moom laa wax ñoo ñoo nekkoon doo ñoo nekkoon doo même ñoo bokk saal bu ñu liggéey ñoom Gris 2 ñoom Serigne Ndiaye 2 waaw mbooy yëpp ñoom Boga ñoom ñëpp ñoo nekk.